procès bu ñeel mbirum radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba tey jeexagul gannaaw bi tribunal hors classe bu Dakar jëlee dogal ngir ñu delloowaat ko ci agence judiciaire bu l'État dem kalaame ji ca cour suprême. bu njëkk bi avocat Ousmane Sonko bi nga contesté te suprême cour suprême dafa ne mën na si bokk même ci juge tribunal tey bi na leen bokk kon je pense que mën nañ jàpp ne kon agence judiciaire la dafa nekk dafa am mandat d'ordre public boo xam ne bi bépp contentieux état état bi daf ko am am na doo mu dugg si. gannaaw dogal gi fukki fan la amoon ngir def kalaame gi. délai boobu mi ngi commencé compter buñ la bu la juge bi jébbalee bu la greffier bi jébbalee kayit bi notification mooy mu ne la àtte bi mi ngi nii. te àtte bi ñoo xam ne ne euh, juge bi euh, greffier bi joxe na ko ñi nga xam ne ñoo ko seqoon jox na avocat état bi représentant l' état mi avant judiciaire l' jox na tamit avocat Ousmane Sonko yi. mbir mi yàgg lool fa mbaxane doone benn Amath Thiam xam-xamam màcc ci wàllum droit jàpp ne cour suprême dafa war a dajalewaat bànqaasam yëpp ngir ñu àtte mbir mi mu jeex benn yoon. man personnellement d' accord ma cour suprême du koy renvoyé waat je pense que euh, temps bi mayewu ko. xat-xati élection yi jege si na février ñëw na dafa koo xam ne candidat la daf ci bëgg bokk te jusqu'à présent mi ngi ci guddi ko xam ne bët setagul kenn xamu ndax candidat la wala du candidat je pense que cour suprême di ko yóbbuwaat di ko yóbbuwaat ci beneen juridiction mooy atte mun na ko def nag mais je pense que amul sens man sama sama xel li ma nangoon mooy cour suprême na ko jël àtte ko boppam ñu mu def ce qu'on appelle ci chambre réunie maanaam dajale chambre yëpp mu àtte ko mu wax na Ousmane Sonko ndax juge bi li mu àtte Dakar da koy dëggal wala da koy du ko dëggal. ñu nekk ci waxtu yi conseil constitutionnel war a càmbar dossier wu candidat yu war a bokk ci jongante falum jitu réew bu atum 2024 bokk am déet bu Ousmane Sonko ci yi la jongante aajowoo ci dogal gi tukkee ca cour suprême.